Serigne Touba ki ñuy wax taxmis nga xam ne sëriñ bi moom moo ko def indi ko ci wàllu istixfaar muy jégglu sunu borom subhanahu wa taala sëriñ tam indi ko ci anam goo xam ne anam gu am solo la lool ci ni nga xam ne la ko indee ndax daf ciy boole tudd tawat ci ak jégglu ko ak ñaan ci tam ndimbal nga xam ne bu fekkee yaa ngi koy jàng taxaw ci am dara ci setantal sax da nga gis ne lu ama am solo la kon bu ko defee lañ ci man rek ci ak leer insha allahu taala mu ne fii la tàmbalee mu ne bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman bismillahi ci tudd tur yàlla la ñuy tàmbalee suñuy wax arrahmaan yàlla mi aji teral mépp mbindeef ci àdduna arrahim yàlla mi aji tam yërëm mépp mbindeef moo ko soob ci àllaaxira nga xam ne arrahmaan mooy yërmaane yi suñu borom ñi nga xam ne moom la tàllal ci àdduna boole ko mboolem jaam ñëpp nga xam ne génnewu ci kenn wala lenn nga xam ne lépp lu suñu borom bind rek yërmaane jooju bawoo ci rahmaan mi ngi daw ci kawam moo tax boo xoolee ku mel ne yonent yàlla ibrahim boobu muy ñaan dane ko rabbi ijaal haasal balada aminan warzuqa ahluhu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmi l axir suñu borom daf jaateg ne ko wa man kafara qaala wa man kafara fa umattiuhu qalilan suma adduruhu ila asabi nnar ngir wan ko rek ne adduna moom yërmaani adduna ji suñu borom jaam ñépp la ko boole moo xam koo gëm wala koo ko gëmul kullan numidu haulaay wa haulaay min ataai rabbika wa ma kaana ataau rabbika mahdura nga xam ne yërmaane ji bawoo ci raxmaan moom moo tëdd noonu suñu borom daf koo tërale noo xam ne mboolem jaam ñëpp la ko boole bu dikkee ci arrahim nag mu yërmaane ji suñu borom ji nga xam ne moom la jagleen ñi nga xam ne dañu koo gëm moo tax mu naan wa kaana bil muminin rahiman moo tax xam nga fee mu ne la fa umattihu qalilan waaye suma adturuhu ila asabin nar bu ëllëgee yowmal xiyaam foofa lay ñàkke yërmane moom mi nga xam ne gëmutoon suñu borom ndax yërmane ëllëg joojee ñi gëm ñoo ko moom wa kaana bil muminina rahiman bari na lool yaatu na waaye suñu borom mi ngi ko warlul ñi gëm ñi nga xam ne dañu koo gëm wa rahmati wa rahmati wa rahmati wasiat kulla sayin waaye fasa aktubuha fasa aktubuha lillazina yattaqun te ci ne wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman mu ne suñ borom tabaaraka wa taala yàlla na joyal salaatu wa salaam jëmee ko ci suñu sang muhammad alayhi salaatu wa salaam muy mucc aku mucc gu matale aku mucc gu matale mucc gu mat sëkk wa salla yàlla dool tedd nga allahu yàlla ala sayidina ci suñu sang muhammadin muhammad wa sallama te musal ko tasliman ak musal te tuxfatul awaax mooy may bindiwaakoon moo xam ne ko mooy koo xam ne day wonk ngi ragal yàlla li suñu boroom naa inna ibrahima la alimun awaaxu munib fii taxmiisi astaxfirullah fii taxmiisi astaxfirullah daf lay wan rek ni mu tërle xasida gi nga xam ne day def ñeenti bay di mu indi indi wenn xàbbu bu juróomeel mu door a jàll mu ne bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ne yàlla yàlla dool tedd nga ci suñu sang muhammad alayhi salaatu wasalaam ak ay ñoñam muy ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci moom ak fameem ña ko ca gëmul wa sahbihi ak i sahabaam mooy ñi nga xam ne dundoon nañ ak moom doon ànd ak moom di taxawal diine wa sallama tasliman ak mucc goo xam ne gu matal loolu doon mu teg ci nag suñ bi def ko ubbee lenn ci ay ayatul quran ngir rek lépp jëm ci wàllu jéggulu suñu borom tabaraka wa taala ak loo xam ne dafa soññeelu ci jéggulu jëm ci yàlla mu ne wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa asama ajran wastaxfirullah inna allaha xafurun rahim ne lépp loo xam ne dawal ngeen ko ngir seen bopp ci ay jëf ci jëf yiw dangeen ko fekk fa seen boroom mu fay leen ko fay goo xam ne mooy mooy gën fuuf gën a màgg tam maanaam loolu waxin la maanaam day wane ne suñu boroom tabaaraka wa taala su fekkee jaam bi jëfal na ko ba mu jëm ci anam ak di ko fay dana ko pay pay goo xam ni su xoolee li ko suñ borom fay su ko dugaloon maanaam su fekkente ne jël ndigg li ko suñ borom santoon mu doon ko def ba tax suñ borom di ko fay day gis ne bu ko dugaloon ci biir pay gi du ci doon dara maanaam li mu doon jëf ba tax ñu di ko fay su ko nettali woon ci biir ak liñ ko fay du ci doon dara day fekk liñ ko fay gàccal lim jëf waaw nga xam ne kon lépp loo xam ne nit ki jëf na ko ci lu baax rek aaya bi wane ne loolu suñ borom dana ko fay dana ko fekk ci suñ borom mu fay ko yow ma tuwaffa kullu nafsin maa amilat tayit suñ borom daf koy fay fay koo xam ne muy gën a màgg ni mu jëfe woon ndax suñ borom daf koy fulal daf koy fulal moom daa jëfoon benn njox fukk baa njox ko lu ko ëpp man jaa bil hasanati falahu asru amsaaliha te sax mën na koo ëpp nii mu ne kon da ngeen jéggulu ci seen borom ndax yàlla buur la boo xam ne bu mën a jéggale la te buur la bu bari yërmande mu ne walaw annahum wa id zalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahiman mu ne ñoom day bu fekkente ne bañ tooñee seen bopp dikkuloon nañu la sàkku njéggal ci yàlla yeneen itam sàkku leen njéggal moom it ci seen borom kon danañu fekk seen borom di buur boo xam ne bu mën a nangu ak tuub la te it buur la bu bari yërmande loolu bu fekkee da ngaa dellu ca téere ba daf doon wax ci lenn ci ay ñoo xam ne sax ni julli leen leen mën a tudde ndax moom la tudde woon waaye dañ daan faral di gàntal ci di àttewoo ci àtte yi diine mel ne xew-xew mën naa am ci seen diggante te buñ leen ko àttee ci ni ko lislaam diglee duñu duñu ko bége wala duñu ko nangu ni muy wax tam di wane naan bañ tooñee seen bopp day wane ne yàlla jaam bi suñ borom du ko tooñ mukk wax na ba tàyyi amallaahu bi zalaami lil abid maanaam yàlla tuñul jaam yi nii inna allaha laa yudlimu nnaas shay'an walakina nnaasa anfusahum yaslimun kon jaam bi lim jëf ba tax ay lu mel ne natt wala yooyu wàcc ci kawam ci jëfam la maanaam bu fekkee mbugal it ci jëfam la moo tax muy waxee noonu na id zalamu anfusahum jaa'uka fastaxfarullaha wastaxfara lahum rasul kon la wajadullaha tawaaban rahiman teg ci ne afalaa yatuubuuna ilallahi wa yastaxfiruunahu wallahu xafurun rahim ba teewoon rek ñu tuub jëm ci seen borom sàkku ci moom njéggal ndax yàlla buur la bu mën a jéggale te it buur la bu bari yërmande loolu bu fekkee da ngaa dellu ci téere bi da nga fekk lu sori foofu mën waxe ci ñi nga xam ne ñoo toppoon yonent yàlla Isa ci doon ko melal ci wane la ruuxul qudus yu maanaam wane ne yonent yàlla Isa ba léegi ruuxam daf fee des askan la tam ak ilaahiya ci moom tax yooyu wax inna allaha thaalithu thalaasatin inna allaha thaalithu thalaasatin te wa maa min ilaahin illa ilaahun waaxid wa maa min ilaahin illa ilaahun waaxid waaye teewul dañ doon saxal ñett yàlla ibnul kalim ak ruuxul quddus yi te fekk loolu nekkul nii waaye moo ne ne afalaa yatuubuuna ilallaahi wa yastaxfiruunahu wallaahu xafuurun rahim mu ne waman yaamal suan aw yadlim nafsuhu suma yastaxfir allaha yajid allaha xafuran raximan képp koo xam ne tam jëf na lu ñaaw wala mu tooñ boppam comme niñ ko waxee woon léegi rek ah topp mu jéggalu suñ borom dana fekk yàlla di buur bu mën a jéggale nekk tam buur bu bari yërmande loolu lépp di soññee rek ci jaam bi tuub war gum war a tuub di dellu ci borom subhanahu wa taala wastaxfiru rabbakum suma tuubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud wastaxfiru rabbakum suma tuubu ilayhi inna rabbi rahim wadud mun na ngeen tuub na ngeen tuubal seen borom ngeen sàkku njéggal seen borom te tuub jëm ci moom ndax sama borom kat buur la bu bari yërmande te buur la boo xam ne am cofeel la ci ay jaamam buur la bu bari yërmande te buur la boo xam ne bu am cofeel la ci ay jaamam ngir wane rek ni jaam bi war nay tuub di dellu ci boromam loolu yonent yàlla Shuayb bu moo ko waxoon aw nitam nga xam ne yàlla ku sopp jaam yi la ma demee ci masaalik danga gis Sëñ Tuubaa di la ko wax danaan la falaysa yanbaqi li abdin ittihaam mawlaahu quran fi alihi min alxaraam li annahu ala alwara ashfaqu min anfusihim wa walidihim lam namin waaw walaysa yaqsudu siwa salaaxina lizaaka xabuhu bi ittihaamina kon kay wasalhu kashfa durri sumal aafiya wa kullu ma xada bihi kun raadiya daf lay wan ne suñ borom jënd ci jaam bi muy teg muy yëkkati tuuma jëme ci yàlla ci teg ku mu koy teg ay tiis wala ay coona mu di ko naqarlu ndax yàlla kat mboolem mbindeef yépp moo leen gën a sopp ci seen bopp moo leen sax gën a bëgg seen i jëmm gën leen a bëgg itam seen waajur yi nga xam ne ñoo leen jur kon yàlla yooyu muy teg jaam yépp jublu ci rek li yoo leen mbiri jaam yi mel ne koo xam ne dangaa yoroom xar di ko sàmm mu wër ba bëgg a lekk loo xam ne daf koy lor da nga egg sax ci dóor ko wala xajji ko fekk kon loolu ngir jariñam la waaye du ngir teg ko fitna ngir du du ngir teg ko fitna nii ndax ma ne inna rabbi rahimun wadud teg ci ne wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midraaran wa yazidkum quwwatan ilaa quwwatikum wala tatawalaw mujrimin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawaaban wa yaa xawmi istaghfiru rabbakum yéen sama nit jéggul leen seen borom te ngeen tuub jëm ci moom suma tuubu ilay su ko defee yursili samaa alaykum midraaran wa yazidkum quwwatan ilaa quwwatikum wala tatawalaw mujrimin tuub leen jëm ci seen borom su ko defee suñ borom dana leen wàcceel xéewalu asamaan dolli leen kàttan gu ngeen dolli ci seen kàttan gi ngeen amee woon waaye rek rek bu leen dëgg seen borom di bokk ci way tooñ yi teg ci loolu tam yeneen yàlla wut moo ko doon wax di ñu soññi rek ay nitam moom itam fa sabbih bi hamdi rabbika wastaxfiru innahu kaan tawaaban yeneen bi lañ ko waxoon fa sabbih bi hamdi rabbika na nga sàbbaal nag sant sa borom da ngay sàkku njëggalam ndax moom innahu kaana tawaaban loolu mooy ayatul quraan yi nga xam ne sëñ bi ubbee woon na ko xasida gi teg ci ne labbayka rabbi wa saadayka wal xayru kulluhu bi yadayka abduka daaif bayna yadayka muqiran ala nafsihi bizanbi wazalali raqiban fi qufaanika wa taqabulika lahu fi lamali qaa'ilan imtisaalik imtisaali li amrika labbayka wuyu naa la rabbi sama borom wa saadayka ànd ak sa saadatu daarayni wal xayru yiw kulluhu ak lépp yiw gëm naa ne bi yadayka nekk na ci sa loxo abduka daif bayna yadayka muqiran ne ko abduka daif sab jaam nag bu néew doole lool bayna yadayka nekk na ci sa kanam tey muqiran mbir muy aji saxal ala nafsihi ci boppam ci tëmbi kaar wazzalali ak rëcc-rëcc raqiban muy aji xemmim nag fii xofraanika ci sa njéggal wa taqabulika ak sa nangul lëhoo ñeel ko fi la amali ci jëf ji qaailan muy aji wax imtisaalan li am rek ngir topp sa ndigal mu ne sab ja mu ne suñ borom wuyu naa la sama borom yow sama borom wuyu naa la labbayka rabbi wa saadayka ak saadu daarin wa saadayka sa ñaari pexe mooy saadu daarin mu ne ko yiw day ak lépp yiw rek ñu ngi ci sa loxo waaye nag sab jaam mu néew doole sukk na tey jii ci sa kanam di sa xam ne defkatu bàkkaar la borom rëcc rëcc la waaye teewul rek ah muy xem sa njëggal ak sa nangul ko ay jëfam ba tax na mu wax lii kon fii fi la bay di tàmbale mu ne alhamdulillahi dil qufraani wal karami suma salaamaani abdal xalqi kullihimo ala lasi saada fi l arbai wal ajami muhammadin xayri xalqillahi albihimi man artaji awnuhu fi lhawli wa niqami mu ne alhamdu mboolem xeeti cant yépp lillaahi aji nekk la ñeel yàlla dil xofraani mi borom njëggal wal karim ak mbaax ah suma salaamaani topp salaatu wa salaam abdal xalqi lu doon li mu mbindeef yi kullihim képp ñoom alal la si yàlla nekk ci yonte bi nga xam ne saada sangena fil arbaay ci arab wal ajami ak lu dul arab muy làkkkat muhammadin mooy muhammad xayri xalqillaahi ki gën ci mbindeef yàlla yi albihim moo di seen man ki nga xam ne norta ji danañu yaakaar awnuhu ndimbalam fil hawli ci tiitaanga moo ni xameen bugal na mu ne mboolem xeeti cant yépp day ñeel na suñ borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne mooy borom jéggal ak mbaax salaatu wasalaam tam lu toll ne mbindeefi suñ borom yépp yàlla nekk ci suñu sang ki nga xam ne mooy sangu arab ak lu dul arab muy mooy sangub sang yëpp kooku muhammadin mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam ki gën ci mbindeef yàlla yëpp nga xam ne ñu ngi yaakaar ndimbalam ëllëg ci tiitaange ba wa baadu fal qalbu min il yowma bo alami min kasrati dambi wal aafaati wal xumami fa qul za tawbatin lillahi min nadami astaxfirullaha mujjibil fulki bi volami ala ubaabi min attiyaari multatimi mu ni wa baadu ginnaaw loolu fal qalbu qalbu min ni fi man al yowma tey ji zu alamin borom mettit la ngir lan min kasrati dambi ngir bàkkaar yu bari ngir bari bàkkaar wala afaati ak ay gàkk wal xummi ak ay tiis fa qultu ba wax naa saa tawbatin may borom ak tuub lillaahi ñeel yàlla min la dem ak réccu maanaa rek astaxfiru maa ngi sàkku njëggal allah yàlla yàlla moomu nga xam ne mu jiiri fulki mu aji dawal bato fi volumi ci lëndëm lëndëmu géej fi volumi ci lëndëm nga xalaa ubaabin ànd ki lëgg mina tayaari ci ay duus maltate muy aji talantaate mooy duus yu nit ñi dalantee noonu mu ne ginnaaw loolu sama xol sama xol tey lu am mettit la ngir bàkkaar yu bari ak gàkk gàkk yi ak tiis yi ba tax na maa ngi wax suñu borom di tuub rek ànd ak di rëccu nag tanaa ko yàlla ak kon baal ma yàlla moom nga xam ne mooy dawal gaal yi ci biir géej gi ànd ak lëndëm bi ak duus yi todutee mu nekk ca di daw ci coobare yàlla naa ko gis mi daifun li asqaamin taxallu bii wa baana durri wa qalbi xayru muntabi fa qultu mustaxfiran rabban aluzu bihi astaxfirullah mun jin mustajiri bihi ida alama bihi duru min al alami gis mi sama yaram daifun lu lompañ la mooy lu néew doole la li asqaami ngir rag-rag yi nga xam ne taxallu day wàcc bihi ci moom wa baana te feeñ na durri sama lor waxal bi te sama xol xayru muntabi yi yëwwul nekkul lu yew mooy ubbikul dëgg rek ci xam borooma ak topp borooma fa qultu ba wax naan mustaxfiran bir muy aji sàkku njëggal rabban ab buur boo xam ne alusu danaa wéeru bihi ci moom mana astaxfiru maa ngi sàkku njëggal allah yàlla mun njil mustajiri yàlla mi aji musal aji muslu bihi ci moom yàlla mi nga xam ne mooy aji yiir aji yiiru bihi ci moom isa alama ne wàcc na bihi ci moom duru lor mel alami metti metti mu ne kaada tarinu ala qalbi zunubi an xawfin wa nuuril huda qaatu kulla zaman fa qultu taaliba xufraan algafuuri idan astaxfirullaha gafaara dunubi liman bilinkisaari ata wa dulli wa nadami kaadat xawaana tarinu di muur mooy di tëral di tilimal di taqal ala qalbi ci sama xol zunub bàkkaar yi wa an xawfin ak walis ak ragal yàlla nuur wa danga naan wa aqatu te gàllankoor ko an xawfin walis ak ragal yàlla wa nuuril huda ak leeru njub kulla zaman bépp jamono fa qultu ba wax naa taaliba xofraanil xafuuri aji sàkku njéggalul aji njéggale ji isan kon manaa rek astaxfiru maa ngi sàkku njéggal allah yàlla xafaar dunum yi ñuy jéggalaa kon bàkkaar yi li man ñeel képp koo xam ne ataa dikk na ko bi linkisaare ànd ak damm muy ak dullil ak mokk wan na demi ak réccu mu ne daanaka bàkkaar yu bari xaw naa tilimal suñu xol xaw naa muur suñu xol wala boole ci gàllankoor ko walis ak ragal yàlla ak leeru njub ba tax na maa ngi sàkku njéggal ci ki nga xam ne mooy aji jéggale yiy jéggale mënaa ko rek yàlla kon baal ma yàlla moom nga xam ne mooy jéggale bàkkaar yi ci képp koo xam ne dikk na ko ànd ko mokk toroxlu ak rëccu di tuub ay bi jaliyun fala yaxfa ala alxuqala lakin rabbiya sataara alxuyubi fala أزال طالب ستر قائلا وجلا أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيه من النقم نعيبي سمع أيب جلي يفعل لما يجفعل فلا يخفى النبو على العقلاء جوي خل ينغا خمني أمنا يخل لكن ربي واي صابر ستار العيوب ميكي ستر على أيبي كن فلا أسأل دم دني taaliba sitirin te aji sàkku sutura qaa'ilan may aji wax wajilaa te aji yàq manaa kon astaxfiru maa ngi sàkku njëggal allah yàlla sattaaral uyub li nga xam ne mooy suturale ayib yi xalaa ahlil uyubi ci ñooñ ayib yi amoon jiiham te leen di musal mi ne ne xami ci mbugal mu ne samay ayib lu feeñ la lu bul ci kenn ko am xel waaye sama borom bi nga xam ne mooy suturaal ayib yi ci ñi nga xam ne dañoo amee ayib kooku kon du ma dañ ci di sàkku ci moom sutura mënaa ko rek yàlla kon baal ma yàlla moom nga xam ne mooy suturaal ayib yi ci ñi amee ay ayib te leen di musal ci mbugal nutqi fudulin wa qalbin nuura lam yazuqi wa daydani xayru mamduhin fa yaa umuqi aqulu mustaxfiran fi libida araqi astaxfirullaha min nutqi wa min xulqi wa shayni sha'ni wa min shakli wa min shiyami na nutqi samay wax fudulu neen rek la wa qalbi te sama xol lam yuzuqi musul an nuura leer wa daydani te sama diine xayru mamduhin du lu ñu tagg fa yaa umuqi yéem naa sama nof aqulu maa ngi wax mustaxfiran mbir muy aji saaku njéggal fi leen ci guddi gi za araq gi boroomu yooru mooy guddi gu dem ba toll ci dëgg dëgg lëndëm dëgg dëgg ku guddi maanaam guddi gu dem ba sori ci biir guddi gi maanaam astaxfiru maa ngi saaku njéggal laax yàlla min nutqi ci samay wax wa min xuluxi ak sama jikko wa shayni sha'ni ak ñaawuk sama mbir wa min shakli ak sama nët sama sama mbind sama bindin sama sama sama sama melo maanaam waxuñu melaw bind waaye melaw melaw melaw melaw wuñu wuñu fatut waxuñu melaw yàlla binde nit ñi maanaam jiblu ci chakk la boobu maanaam chakk lii sama melaw comme ñu nit ki daa amee melaw yaray di ko daa amee melaw wu ñaaw nii waaw lu mel noonu amin chiem yi ak sama jikko mu ne samay wax neen rek la daanaka duñu wax lu am njariñ te suñu xol musul leer ak suñu borom tabaaraka wa taala suñ diine it wax dëgg du luñu tàgg kon man yéem naa sama nof maa ngi wax rek tey saaku njëgal ci jamono yu guddi gi mënaa ko yàlla kon baal ma ci samay wax ak sama jikko ak ñaawu sama mbir ak sama melo ak samay jikko rek ba tey sama yenn chiyam yi di jéggul suñu borom naa sirri qabiyon li dux fil qalbi wal badani waqad amaata fuaadi daxku maxdadani ala atuubu wa nabdul mawti yaqsiduni أستغفر الله من سري ومن علني ومن تقلب قلبي وابتشام فمي سري سما سما بير مي سما سكرة قبيح لبلا يدعو في القلب يراق قلبي والبدن اليروي وقد أمات برينا فؤادي سما قل الضحك ري ما هددني عندك جاهان كنك على أتوب نخدم التوب ونقل الموت تبند فاتك دي يقصدني دي ما جبلو mana astaxfiru maa ngi saaku njëggal allah yàlla min sirri ci sama biir sama mbóot biir sama mbóotum biir wa min alani ak li nga xam ne moo feeñ ci man maa ngi jégalu suñu borom ci li nëbbu ak ci li feeñ wa min taqallubi xalbi ak ci wëlbatiku sama xol wabtishaami fam yi ak ci mooy sama gi ñun sama ree yu bari manaa suñu biir lu bon la ngir ragu xol bi ak yaram wi daanaka ree yu bari ak caaxaan yi xaw naa rey suñu xol ma ndax nag kon jotul ma tuub te bantu fettu dee di ma jublu maanaam dem ba jee dega dem ba dee jege ma kon yàlla na ci ma tuub dellu ci suñu borom moo tax rek manaa kon yàlla baal ma ci li nëbb ci ñun ak li feeñ ak wëlbatiwu suñu xol ak suñu rey yu bari lépp rek aw nga nii mu ne samay nopp ngay jël pindu ci suuf tus yi day xerawlu li maa ñeel loo xam ne yuf dii day eggale day yóbbu ila dara dina ci lor waaye ñi te sama bët tanzur day xool li maa ñeel loo xam ne yuf di day yóbboo ila dara jëme ci lool loolu na lance ci lu dul ak waar maanaam ci lu dul muy xool ak waar wala mu di ko dégg wala ay bari ak waar tam kon samay nopp dégluwul loo xam ne lu koy jariñ la waaye day déglu rek loo xam ne daf koy yóbbu ci lool samay bët itam xoolul loo xam ne daf koy daf koy daf ciy jëlee maanaam wance daf ciy jëlee ibra maanaam waaroo ci waaye day xool rek loo xam ne daf koy yóbbu ci lool kon fa tuutu maa ngi tuub lillahi ñeel yàlla lil israayi ñeel sama xerawlu gi may xerawlu di déglu loo xam ne lu may jariñ wala wari ak xool gi may xool yoo xam ne lu may jariñ man a astaxfiru maa ngi sàkku njëggal allah yàlla min samay ci sama déglu wa min basari ak sama gis min damiri ak sama bamir muy sama biir wa min fikri ak samay xalaat wa min kalima ak samay wax ñun mu ne ñun suñu nopp dégluñ ci lu am njariñ suñu bët xooluñ ci lu am njariñ xooluñ ci lenn baa ñu ciy déglu lenn lu dul loo xam lool ba tax na maa ngi tuub déglu gi may déglu wala xool gi may xool loo xam ne nekkul lu ñuy jariñ ba tax na ma naan suñu borom kon baal ma ci lépp lu may déglu te waruma koo déglu wala loo xam ne dama koy xool te waruma koo xool wala loo xam ne dañ koy fas ci suñu damir te waruñu koo jàpp wala ñu koy xalaat wala ñu di ko wax wa kam tajaratu fi qawli wa fi amali ala ilahi bi afamin gadat kabali min ajli za qul lama tubtu min xajali astaxfirullaha min jurmi wa min zalali wa min kabairi afami wa min lamami nga bëgg li ci samay wax wa fi amali ak ci samay jëf ala ilahi ci sama borom bi afamin ànd ki bàkkaar xadat yoo xam ne xëy na kabali di sama jéng ah min ajli za ngir lii na xultu wax naa lama tubtu ba tuubee min xajal ak ruus gàcce gi mën a astaxfiru maa ngi sàkku njëggal allah yàlla min jurum yi ci sama tooñ wa min zalili ak sama rëcc rëcc wa min kabairi asaami ak sama bàkkaar yu mag yi wa min lamam yi ak sama bàkkaar yu ndaw yi mu ne man barwaana lool wax dëjër la ci wax baa jëf ci loo xam ne wóor na ma ne dafa wuute ngërëmal suñu borom ànd ak bàkkaar yu bari yi ba mujj mel ne ab jéng ci man waaye ngir lii tax na may tuub ànd ak gàcca di wax rek yàlla naa ko kon baal ma ci sama tooñaange yi ak sama rëcc-rëcc yi ak sama bàkkaar yu mag yi ak yu ndaw yi yaddi wa rijli lima yusal fata bi xadi tajni wa tamshi fa yaa xammi wa yaa nakadi lakin atuubu ila rabbil wara samadi astaxfirullah mimma qad janatu yadi min alxataaya wa mimma aqdama qadami mu ne yaddi sama loxo tajni day wat limaa ñeel loo xam ne yus day gàccaat alfataa jam si bi xadim ci ëllëg wala jilee te sama tànk tam tam shi day dox limaa jëm ci loo xam ne yus day gàccaat rek alfataa jam si bi xadim ci ëllëg kon fa yaa xam ni yéem naa sama njàqare wayaa naka di yéem naa sama tiis laakin waaye atuub maa ngi tuub ilaa rabbil waraa jëm ci buurub mbindeef yi zamadi kii sama kilifa astaxfir maa ngi sàkku njéggal allah yàlla mi maa ci lépp loo xam ne xat janat wat na ko yeddi sama loxo minal xataaya ci ay ñaawteef wa mi ma ak lépp loo xam ne aqdamat avancé na ko maanaam mooy jéego na ko xaddimi sama ndëkku mu ne samay loxo wattu lu dul loo xam ne dafay day gàccal nit ëllëg maanaam defuma ci lenn loolu loo xam ne rek dafa indi nit ki gàcc ëllëg tànk yi yéenu ma ci jëmm ji du ko tuxal ci yenn béréb yu baax xanaa lu béréb yoo xam ne rek moom it day gàccal nit ki ëllëg kon yéen naa sama tiis ak sama njàqare tiwul nag maa ngi tuub di jëm ci boor bi nga xam ne mooy buuru mbindeef yépp nga xam ne moom mooy sama kilifa mooy ki nga xam ne bu ma amee moom rek moom ki ma mën a jox bu ma ñàkket moom rek mooy ki ma mën a xañ bu ma xamet moom rek mooy ki ma mën a xamal kon maa ngi jëm ci sama kilifa boo xam ne lenn lu ne moo ma ko mënal waaye keneen mënaluma ko waaw moom moo ma ko mënal waaye keneen mënaluma ko kon astaxfiru maa ngi sàkku njëggal allah yàlla mimma ci lépp loo xam ne xat janatu wat na ko yeddi sama loxo mooy kon lépp loo xam ne jëf nañ ko ci suñu loxo te waruñ ko jëf loolu ñu ngi koy jégalu suñu borom tabaraka wa taala ci ay ñaawteef ak lépp loo xam tam suñu ndëgg ndëggalu ci lu dëppoo te ngërëmal yàlla ñu ngi koy tuub ba tax naa ko yàlla kon baal ma rek ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci tànk yi wala loxo yi te dëppoowut ak sa ngërëm xat saa ani nag xat saa ani xaflati wa qupp ma amilat كفي وما من جميع سعي قد تركت فقلت لما رضى نفسي غدا قشيت أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي ما اكتسبت في مبلغ الحلم من قد سأني نقرنما غفلتي سما تجنت وقبهما ak mbonuk li nga xam ne amilat jëf na ko kaf fii sama tenq wama ak li nga xam ne xat tarakat bàyyi na ko moom tenq li te fekk muy lu mu waroon def min jamihi saa yi ci mboolem jëf yi fa qultu wax naa lamma xasiyat ba mu ragalee arada alkane naf si sama bakkan xadan ci ëllëg mana astaxfiru maa ngi sàkku njéggal allah yàlla mimmaa ci lépp loo xam ne lam tëkkul nekkul moom tenqali kasabate ko fàggu mimmaa ci lépp loo xam ne lam tëkkul nekkul kasabate ko fàggu ka fii sama tenq te fekk muy lu mu waroon a def wa maa ngi lépp loo xam ikkita sabat fàggu na ko mooy def na ko fi mu lequl xelu mi ci jotu gént gi mooy bi mu nekkee mustaalaf li nga xam ne nekk naa mustaalaf naqari na ma lool sama càggante gi nga xam ne maa ngi koy dund ak mbonok yi nga xam ne maa ngi koy jëf te dëppoo te ngërëmal yàlla nga nga xam ne sama tenq daf koy jëf ak yi nga xam ne bàyyi na ko te fekk mu yoo xam ne daf ko waroon jëf ba tax na maa ngi tuub ci jamono yi nga xam ne nag ragal naa alkande lool ëllëg ragalal naa ko sama bopp ba tax na ma naan ko yàlla kon baal ma ci lépp loo xam ne kat jëfuma ko te ma waroon ko jëf wala loo xam ne dama ko jëf te fekk war ma ko woon a jëf ci jamono yi nga xam ne nekk naa foo xam ne lu ma jëf ñu topp ma ko mu ne nafsi taqudu xijaaya dëhrakal farasi walam aqul fihi cheyan mithalsil xarasi axlaytu anfaas nafsi layla fil xalasi astaxfirullah min nafsi wa min nafasi wa xaatiri wa xuduril wahmi bittuhami mu ne nafsi sama bakkan taqudu day womat xijaaya samam xel ak dahra diirub jamono kal farasi ni ki aw fas mel new fas walam aqul te waxuma fii jawm cheyan dara mithalsil xarasi mel ne borom gullu axlaytu wéyale naa mooy bàyyi naa rek mu jàll anfaasa nafsi sama nokki bakkan yi àllayla ci guddi fil xalas ci niir niir astaxfiru maa ngi sàkku njéggal allah yàlla min nafsi ci sama jëmm wa min nafsi ak samay nokki wa xaatir yi ak samay xalaat wa xuduuri wax mi ak sama teew deflew bi tuumi ak tuumi mu ne sama bakkan dafa womat rek sama xel fu ko neex rek jëmm fi mel ne ku womat saw fas sama nit waxuma ko dara ma ne cell rek mel ne koo xam ne dama luu xam nga liñ taamu woon maanaam mooy xel woo mat bakkan ba mën a reejaat mu jubbanti ko waaye nag mu ne bakkan bi moom moo far woo mat xel mi mel ne ku mat saw fas rek te man itam mel ni mun maa wax dara mel ni man tam ma mel ni ku lu ànd ak nag sama noppi bakkan yi mooy maanaam damay fanaane noy ci air bi noonu rek ci loo xam ne maanaam lañ ko def ci jaam yàlla wala leneen waaye ñu fanaane nelaw rek fanaane fil xalis ci niiru mooy guddi gu jaxasu ak lëndëm mel ne bu asamaan di bëgg a set te jotagul seddul dëgg-dëgg nii kon daal mooy damay fanaane nelaw rek di noyyi rek ci air bi ci loo xam ne xëy na maanaam lañ ko dundal ci ay jaam yàlla wala ay sàbbaal yàlla te defuñ ko ba tax na mën naa ko rek yàlla kon baal ma